nuyu nañ leen ziar nañ leen ñaanal nañ leen sàkk bu baax ngeen junu ñaanal di am mbégte ak contenté ci ànd ak yéen saa yu ne di wax ne mbégte rek lay doon jàkkaarloo yéen di leen wax ne ñëwati ngeen ci seen émission bi nga xam ne ko yéen tànnal seen bopp ndax rafet lu fi ñu jàpp mooy émission tegtal tegtal di jotaayu njëriñ ñii laaj ñuy teg luy tegtal wax naa leen ba tàyyi tegtal mooy lan da nga bëgg a dem afrique multimédia ñu ne la fuy afrique multimédia nga ne boo ñëwee ba sacré cœur ci bobu soxna sunu bo demee deuxième étage ci nga gis avenue buntu média tegtal moy lan ngay laaj fan la LCS nek ñu ne bo ñew ñëwee ba sacré ci digënté ñaari point bo xolé rek di nga gis LCS tegtal moy lan mbeur bi di ni muy bëré dañ ko jox ay tegtal dañ na ko defal li lolu moy tegtal tegtal dafa mëne fan seen émission tegtal nak liko waral moy nan la di def ba jariñ du maa leen koy wax waaye dinañ wëri borom xam-xam bo xam ne japp nañ ne bu waxe nit ñi dinañ jariñu xam-xam dina yokku képp ku tawatoon di nga gis lan mooy luy solution bi moo tax tey ñu doxantu ba kër mbay fall ci wetu arrêt jumaa ji gis fi gan koo xam ne man xam naa ko bu baax a baax waaye yéen a ko xamul bu baax a baax pour ngeen xam mooy kan nag dañuy def nii asalaamaaleykum Jili Gaye ñu ngi lay nuyu di la dalal ci émission tegtal ak luy nuyu askan bi lay seetaan nga xam ne bëgg nañ xam bu baax yaay kan. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa man sëriñ Jili Gaye maa ngi kër Mbay Fall ci rajo Maja comme ni nga ko waxee di nuyu waa réew mi yëpp di nuyu waa Sénégal di nuyu mbokk yëpp man nag maa ngi dëkk Touba fa laa fa fa fa laa dëkk. Uh-huh. waaw. Touba nga dëkk. Mm-hmm. mais yaa ngi uh, kër Mbay Fall. waaw waaw sëñ Jili Gaye li ñu bëggoon xam comme yow da nga ne da ngay ñaan. Mm-hmm. di faj di listixaar di seetaat ñoom seen yooyu yëpp ci biir. mais yooyu da nga def ngir bëgg ko rek wala dang ko def ngir man ko rek wala dang ko def ngir jang ko wala dang koy def ngir dond ko wala lan mbot bi deug deug deug fan la joge ma mbiri mayu la wala lo man la mbot bi deug deug deug mi ngi joge ci sama baye mo def ma juddu ñu nampal ma ci lolu yar ma ci lolu ma kay def man ko xam ko muy sama bëgg-bëgg tamit amul lenn loo xam si ne bëgg naa ko loolu lii may def loolu rek laa bëgg. rek moom mooy sama moo ma tax a jóg. moo ma tax a jóg ci laay nekk ci laay sax ba rek may faatu te samay doom ba léegi tamit ci laay leen di yar ci la ci la ñuy nekk nax tamit maanaam docteur moom baax na ci cim réew. docteur baax na ci réew. Mhm. Euh, mbir bi. Mhm. reen yi fondement bi. Hmm. dëgg-dëgg li nekk ci yow. da nga ne sa waajur moo def ci yow. Hmm. mais fan nga jaar avant loolu maanaam sa waajur moo def lépp ci yow wala dafa am ñeneen ñu def loolu ci yow lu dul moom kese. waaw sama waajur ginnaaw bu mu sama waajur bu ma ko fekkee ci moom mu nekk ci kër sëñ Mourou Moustapha ak kër sëñ Abdou Borom Dër bi nekk foofa man ma juddoo ci biir kër sëñ Abdou Borom Dër bi sama waajur jël ma. tuddee ma Serigne Abdou Khadir Mbacke ginnaaw lol tamit ma yaro fa mag fa ñu jox ma serigne soye bu mu may jangal alcorane jor na ma juroom benn at ku ñu wax dan buso ma wonon jangal ci kër ga ndax serigne soye bu dafa yoron sona so xam si ni magat gay di sona serigne soye bu moy sona bajjan mo sona baye bok nday ak baye serigne Mourou Moustapha yoron magi magam moy sona Faati Gay moy sona serigne Mourou Moustapha lolou moo ñu dugal ci kër serigne Touba ñuy mbokum serigne Touba moo nekk ci sëñ Soy bu am fa juróom-benni at ginnaaw loolu na sëñ Soy bu danaa jël ay dongo di ko jox sëñ Saaliwu man ci dongo yooyu ci laa bokkoon mhm. dongo yi sëriñ Saaliwu sëñ Soy bu joxoon sëñ Saaliwu ci laa bokkoon jël ma jox ma jox ma yóbbu ma njurul jox ma ku ñuy wax Abo Gueye Abo Gueye moomu ma doon jàngal ci njurul am naa fa fukki ak juróom-benn fukki at ak juróom-benn ak juróom-benn yi nga def ko sëñ Soy waaw ah sëñ sooy bu doomu Serigne Touba. Mm-hmm. Xaadimu Rasuul. Mm-hmm. sëñ sooy bu ko xam-xam ne. Mm-hmm. caaxaan dafa xëy mu góor. caaxaan jëm ndar mu jëm Dakar. ko wér. ak ñoom sëñ Abdou Samad ak sëñ Fallou njaboot sëñ Samad bi yëpp. sëñ Cheikh mais ak sëñ Cheikh yi. sëñ Laat ak sëñ Laat ak yëpp. waaw ñu ngi xam nga bind na téere bu sax boo xam ne que. moom la xuratul xay. téere boobu defe naa ku koy liir rek defe naa sa dund. ak sa dëddu doo ci jub. ndax lépp mat na. téere boobu damay jàpp ne ku ci tënku woon rek. dina kii mais yan mboot gën mën a wax yu ci seen sooy yoo xam ne xëy na nekkul ca téere ba. ak loolu dund li doon wax fotal dina ko jàpp du ko jàpp ak. yooyu nga dugal ñu ci tuuti. waaw xam nga Fara sax dana ko jàpp ndax am nañ ay hmm. fotom. Fara dana ko jàpp. gars yi dañ ne benn la waaye waaye waaye moom ci boppam. dugum dëddugum dëddoon aduna ak top sunu su eh, yonente bi sallallahu alaihi wasallam mo taxon taxoon ñoom ko jaan waxal yu bare bare ndax mom dara yi caaxaan mm-hmm. daw ko nang ko def ci kërëm wala am po wala mu tëgg wala mu fecc wala xeet yu non sunu sunu li ma xam ci moom mooy jàngale alxuraan ak dundul sunu si yonente bi sallallahu alaihi wasallam ak top ndigalu serigne touba yi tan nam toogee won njabotam gi don doon wat ba njabootam sunu sunu bu tay bu sëñ Tuubaa ñëwaatoon jamono duñ soppi seen toogaay. duñ defarwaat duñ defarwaat. sëñ daal loolu laa xamoon ci moom dëddu àdduna guddi ba guddi la daan génn buy génn day dox ndànk dem ci jumaa yi dem ci armeer yi ñëwaat toog jàpp boppam waaye nag xam-xamam yépp nag yu ci ëpp génne na ko génne na ay téere yu bari tasaare ko jullit yi ngir ñu mën cee jariñoo leetar yi ci fi ni seigne son moko bindon sama wajur wax ko ci ay wax yu bare bare bare mm. dama fuk fukk lu ma ak juróom ben wa mi ngi mi ngi ci mi ngi ci mi ngi ci biir nga xam ci ni sama baye daan def ay ñaan daan ñaan amna ci leetar yo xam ci ni seigne son da ko wax nan ko jiw mo mala la ak mom li ka dal na ko sekk ndig dégg am na xam ci dina wax naan na ma bindal safara sax mu daan bindal naa la leetar yaa ini ak tampon ba ak numéro téléphone ba ak signature am ni ki leetar yooyu nag waaw ni ki leetar yooyu tamit amna na yu mel non yo xam si ni noonu la bindé sama wajur serigne Moustapha Gaye moo nekkoon ke serigne borom dër bi daan fa jangal alcorane moy ndajaay serigne Mourou Abib Mbacke mi ngay dégg serigne Balla Bey sama baye ah. moy ah, ndajaayam non dal noonu daal dal soño man li xam ci mom dal bari na mën a xajul ci waxtu yu daal hmm. waaw. kon daal yow man dafa may neex trop émission tegtal ma fi indi nit boo xam ne que ku jàkkaarloo moom di nga yëg ni kii du nitu caaxaan ku jàkkaarloo moom di nga xam ne kii nga ko seqal boroom xam-xam la. moo waral may bëgg toujours ci introduction bi ñu wax leen nit ki wax mooy kan bu ko defee nga xam ki nga ko seqal parce que yow kër gi nga jaar moom foofu. ñun xamu ko apprécié wu um, mais dañuy nangu sëñ e bok boog salih e kan mom tay ay caaxaan wu len légui ci bir lañ fa tibbee mom ngay ñew pour jox casquette waaw léegi ñu ñew fofu ci bir mbir bobu bu ñewé ci bir dañuy ngay dégg ñaankat yi ñu ci bari lélé ñaan diw da koo jël dugul ke kërëm mu dugg xalwa ak yu mel noonu xalwa ay e temps da nga daan dégg ñaan ah eh, xalwa de bu fa duggé lo ñaan lo ñaan bu nango rek problème am mu nangul ding ko tel xam hmm. ñi ne ben way dafa ñewon di dugg ci xalo gëmul ne man na ki mu dem ñaan mbop yalla may ko aduna mbop bam mu fofu foofu hmm. lenn lu ne dang ko deg ci xalo hmm. legi xalwa lan bëgg nga tojal ñu moy lan dugg xalwa ak jëriñam ci ci askan xalo xam nga suñu borom yeen yonte sallallahu alayhi wasallam mo ñaan leen suñu borom mo ñaan leen moy leen yonte yalla suñu seydina sallallahu alayhi wasallam li wax adu sallallahu silaalu muhammad ñaan mooy ngànnaay julit xalwa nak bokk na ci xeeti ñaan yu ñaan suñu borom ñaan go xam ci ni amul ben caaxaan lu ciy nek nax do lek lu jóge ci tin lu ñuy togg da ngay tëju do gis jigéen sosoxna sa do ko gis ñata fan lay doon am xam ci ni ñim fukk fan lay doon amna bo xam ci ni ñetti wer lay lay doon waaye bu gëna mag bu gëna mag mom moy lu xalawatu bu suñ tuwaa defoon ci geejgi moy juroom ñaari at ak juroom ñaari wer ak juroom ñaari fan lolu xalawatu la xam nga est-ce que jot bi ci jamono ji bari na ci Sénégal. man de ci suñu doole a gisoon gisatuma ko ci keneen. yaa <laughs> waaw. man duma ko def ndax aw ma jot gi. waaw te gi. suñ nag maanaam dafa doon def na loolu ngir maanaam ñépp ñépp nit ku ñuul ak nit ku weex li koy firndeel tey jii foo dem ci àdduna bi gis kër Sëñ Tuubaa nit ku ñuul ak nit weex. xalaw amna bo xam ci ni ñeen fukki fan la bu ñeen fukki fan bi tamit non la amna bo xam ci ni ñetti fan la bu ñetti fan ñetti fan waaw amna bo han mo ci gëna a yomb waaw bu bu ñetti fan bi mo ci gëna a yomb benn yomb ci sax na bu ñetti fan bi man da ngay wor da ngay wor yor du tur du wenn tur yàlla nga kay sikar waaye bu ñetti bu ñetti fan yi man na ni wal talsam ngay def talsam da nga jël benn turu yalla wo xamni ni mhm. koy talsam boole ko talsam moy lan talsam man nga jël tëj lu mel ni allahu rek batab allahu nga talsam ko nga adat ko mu jox la fuk 7777 fuk junni ak ñent junni ak nangam nga def ko benn turu gudd nak lolu may talsam nga sikar turu wo nak mo gëna gaaw au lieu nga nek na yalla tif yalla tif yalla tifu déedéet dangay jël yàlla tifu am noo ko liggéeyee ba mu nekk benn baat bu gudd nga xam boo ko waxee benn yoon rek dala jox 16666 xam nga ma la wax. xam naa waaw nga koy werd nag ñetti fan yi bu ko defee maanaam aajo ji rawxaan dana ñëw la aajo ji faju na wala aajo ji du faju. mais boobu dafa am aajo bu mu war a mën a faj rek. yem ca wala mën naa faj aajo yëpp. mën naa fa aajo joo xam si ne jaaxle na ko mel ni ku feebar koo xam ni dafa feebar feebar bu xamul lu ko dal lu mu doon. fu mu dem dugg si lu ko dal mën nga ko dugal xalwa koo xam ne sa kër nga koy defee wala këram wala foo ko defe rek baax na. déedéet du foo ko defee baax na léeg-léeg am na xalwatu boo xam ne ñaa ngi defee ci booru géej tefes géej lu mel ni ay dëkk yu nekk fii du ma ko dëkk yi. Mhm. am na yoo xam ne yaa nga koy defee biir Touba am na yoo xam si yaa ngi koy defee Xelkom àll boo xam si ni maanaam day fu dal fu dal nga ko man def. fu dal rek fu di tekk rek ndax xam nga Dakar dafa bëri bur wi. Mhm. mu ne ko mën na fee dugg xalwatu dara. Mhm. ok cibir kalau bunyan bu ñeen fukki guddi bu ñeen fukki fan yi moom nu muy demee boobu ci ci bu ñeen fukki fan yi lépp sikar la rek ak jaamu yàlla la rek ak jaamu yàlla lépp sikar ak jaamu yàlla la rek mhm. ak ak jublu ci suñ borom rek waaw xalwatu moom lépp jaamu yàlla la waaye nag dafa am dafa am dafa am dafa am aw yoon woo xam moom ngay def tayit rawaxaan dina ñëw ni la aaja ji faju na nangul nañ la ko nan nga koy xamee bu la ko waxee dala koy wax nga dégg dala koy wax nga jàkkaarloo yow wax na rawhan comme suma jëm ji wala comme sa jëm ji rek moy rawhan rawxaan soit mu dëkkal mm, hmm. ci neraw wala mu dëkkal la lu ci mëna amit dana dana dana la dëkkal dal inshallah ok waaw jërëjëf sëñ Jili hmm. ngay loolu mi ngi leer ci walu xalwa ak yoy ñu ñëw ci benen bir muy mbirum set hmm. yow da ngay set set dafa bari fi ci dëkk bi trop trop il faut ñu xool set wala dagan na même bu dagané ya tamit lan moy njëriñam parce que tay bu dee man dama wara a ñëw kër mbay fall aju mo fi ñëw aju aju bu nga demee suba ding fa dem même bu ma fa démé bo wax bi amul njëriñ quoi comme yag yag dama fay dem rek amul problème mm-hmm. mais cette yi dañ gis né fi lu ci ëpp daal nga du wax lu naqari lu neex rek la ni wax japp nit naan ko amna papi papier yaangi ci mbir ku nekkul ci mbir parce <laughs> que comme la wax wax li nga ñëw ci lamb ci nga seen ko xamna ko day ñëw mm-hmm lamb ji ni nang nang manam tay li xew li xew wa ñu ci seen kaw pour mu ko tay lamb jéeg yeb bo xam seen am na njëriñ wala amul njëriñ araam araam xam nga xam lu feddu mom suñu borom dag moko xam amna ci jam ño xam ci ne suñu borom xamal na lo xam ni ba ila yemi diini duñ ko wax te dina tek rek dina tek rek ndax suñu borom bu fekkente ne dalay wax nga kay waxat duut la wat lam la may dagay nang wat ndax amna place bo xam si ni boo place suñ borom taxaway ko taxaw suñ borom suñ borom dan la toroxal toroxal go xam si ni xam su toroxal bop la yow ya ko bokk waaw waaw yow dong yaa koy bokk yaa dégg gis nga suñu borom do wax ci alquran innamal khamru wal maisir wal ansabu wal aslaamu rijisun min hamri shaytani bu njëkkoon arab yi dañ ñaan dañ ñaan dañ ñaan seet ci ay bant dañuy samp bant bi bu fekkente ne samp nañ ko bant bi bu taxawee ñu ne nangam la bu fekkee dafa tëdd ñu ne nangam la gis naa sax ñuy rey ay ginaar ci Sénégal bu ganaa gi jaaxaanee ñu ne sa mbir baax na bu fekkee ganaar dafa këpp banku ñu ne sa mbir baaxul waaye seet dafa aram ñun dañuy listixaar dafa aram dafa aram suñu borom moo ko tere ne ko bàyyi wax ko seetkat yi lay seetaan wax ko seetkat yi seet dafa aram nañ ko bàyyi ñun ñëpp ñu ko daan def ndax loo xam ne même boo ci dee joxe dépense it jëru ko gis nga wax loo xamante si nii boolaa àll am na ñaan dañaan làmb ji diw mooy daan danoo bari ah. léegi danoo bari léegi maanaam maanaam ñooñu xamuñu seen bopp dara ña koy wax boo mënee laj saxaar nag laj saxaar nit dina ñëw man damay def li saxaar ñëpp dama leen defal li Sénégal ku ma xam ne damay def li saxaar boo defee li saxaar fanaanoo ko boo xëyee dana la diw kat na saraxe nangam wala nangam wala balaa sàngam dana wàcc nangam nangam am na ci média yoo xam si ni bi ñuy bëgg a def événement yi euh, élection yi loolu wax naa ci nee na nangam a nangam dana am ñu laaj ma ci te loolu moo am. yow daal waaye waaye gis nga li ma lay xamal si suñu seex mooy seet. seet moom baaxut. nit muy kiy pettaaw muy kiy pettaaw ak seet ci rey dara ginaar wala xeer yooyu. wala yëngal ay bant comme la ko waxee woon wala seet yooyu yëpp dara baaxu ci man nag amul seet bu ma mënul daal dama ko bàyyi. amul pour yow amul njëriñ daal. man na maa def ramli ramli mooy seet bi ñuy seet ci suuf man na seet ci ndox man na maa seet yeneen façon seet ay pettaaw yëpp mën naa ko waaye damaa xam ne dëppwut ak alxuraan la saraat xam-xamu la saraat laa jëfandikoo man. yow daal fa nga jóge moo waral lu dëppwut ak alxuraan soo yoon nekku lépp loo xam si nii daal sunna la ak alxuraan dinaa ko jëfandikoo. ci suñu soñu bi daan ñu ko wax lepp lu ñu xol ba nga xam ci ni manam sunna la jëfandikoo leen ko wa lo xam ci ni da ngeen koy def ci du yaq sin di yàq seen diine ba ngeen bayiko ko baaxut mhm. waaw d' accord Jili euh, gay ñu ñëwaat ci benen bir mhm. fi ci Sénégal mhm. muy walum euh, ñaan ñaan dafa doon lo xam nak yeen ñi ñaan da ngeen gëna a ak yalla ñi dul ñaan wala lan mo waral parce que bu done yéen a yor mbiri yi gars yi dem naan leen may len ma may len ma. Hmm. may len ma li quoi. Hmm. mais gars dem ñaanal ma. Hmm. legui ki ñaan. dafa tayel pour dem ñaané boromam directement. wala ci boppam dafa gis ni yeen ñi di ñaan yeen gëna jubo ak yalla ñu leen di ñaan pour ngeen jappalé leen ci. xam nga ñaan ma ma ma jubóog sa borom ci ndax mëno di nan di ñaan yalla ba paré di jëfëndiko lén lu aram lo xam suñu borom duko téré tere. comme lan. lu melni ngay tox wala ngay nan sangara wala ngay def yenen di ñaan yalla wala kon li xaan wax la lay wax légui ñaan faaw nga jubok sa borom té faaw nga xam yoon wi mi ngi melni tay ji nga jël tur yalla necca rek necca ci bir tur yalla wowo boo ci nekkee seytaanee dana ñëw di xamal ne la yow egg nga suñu borom te mën ngaa yem foofu egg nga suñu borom waaye nag nga bañ koo faale nekk ca rek bu yàggee maanaam lu ngay ñaan boo ci naaguwut xam nga tey jii ma ngaa ñaanal nit ki maam nga ba nga nga nga rëy rëylu ndax suñu borom bind na kenn ku nekk malaaka moo xam ni dafa ne ci kaw am malaaka moo xam ne dafa ne ci suuf bu fekkente ne da ngaa wàccee sa bopp. malaka mi ne ci kaw moy xej jëmale ci asaman ci bu fekke da ngay reere lu nak malaka mi ci suuf moy xej jëmale ci suuf waye ñaan mom faaw nga jëbok sa borom dego ñu suñu suñ dafa dafa jubóogoon ak boromam borom wax suñu borom def ko yent yalla ibrahim dafa jubóogoon ak suñu borom bam ne xar suñu borom sidina muhammad dafa jubóogoon suñu borom waye lepp ci kaw jubóo gi rek jubóo suñu borom te sidina muhammad sallallahu alaihi wasallam moy ngeen gi mindeef te yonent tamit am saaba yi ñëwoon nañ di ko laaj ca waxul insha allah ki suba ga benn aaya wàccut du ko fàtte daa fàtte wax insha allah kon kon lépp mi ngi aju ci suñu borom suñu borom waaye nag suñu borom du moom yëfam yii ba pare nga ñëw ni ko ma jox ma ci far force déedéet da ngay tërbeewu mhm. comme ni ñu doon def këriñ saaliwu di ko liggéeyal ba mu xëyee wàcce ñoom gërëm leen. moom gërëm solo am solo mooy. mënul weesu sëñ Saliou gërëm. waaw ñu ngi ñaan yàlla taaf ñu ci barkeem quoi. sëñ Saliou Mbacke moom moo doon borom jamono. léegi ñu ñëw ci beneen biir ci day dëppoo côté ñaan ba léegi. fii Sénégal. maanaam léeg-léeg da ngay gis nit maanaam bu yorul dara. Hmm. day bari yitte. di hmm. saraxe. Hmm. oyof. di julli. Mm-hmm. di def lépp mais bu xéwal ñëwee dootul am jot boobu. Mm-hmm. gis seen tamit beneen mbir nit day nekk ci dund bi maam mm-hmm. buy dund léeg-léeg ay mbiram bu dëgëree. gaa yi ne ko saa yi temps yi da war a sell moytu sobe si dinaa nga façon yu mel noonu. bu ko defee moom day jàpp ne léeg-léeg ñenn ñu jàpp ne. sobe. day xañe ba léeg-léeg bu dee jaamu yàlla sax duñ ko def ngir yàlla mais dañuy def ngir saxale ko yenn situation yi. ñu gis ne tubaab yi xamuñu sangu set xamuñu jàpp xamuñu julli te da ngay seen xalé bu ndaw yori milliard xam nga suñu borom dafa ne bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim rahman gi mom la jagleel wa aduna ñoom ñi gëm Ar rahim nak mom la jagleel wa alakhirah xam nga rahman yi moy kep ko xam ci ni ci aduna rek suñu borom mëna la fay indil xéewal muy tubaab bi ñu ci biir ak yeneen ñi nga xam si ne yaa ngi ko waxoon léegi mooy ñeneen ñi nga xam si ni dañoo nekk fii te bu ñu ñàkkee gaaw di jullee ko woor bu ñu amee dara commencé bew dem soirée ñooñu ñu ngi ci araxmaana yi ak ñi nga xam si ni dañoo am étage ne ca kaw tiim ñi ci suuf yàlla moo moo dogaloon noonu àdduna am araxmaan yi waaye araxim yi nag am na ñu ko jagoo mooy ñi nga xam si ni dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy tuub tey djeglu japp na suñu borom suñu borom la bañ ko yamal ak lenn waaw moy ara ara heme ji yow ci xam nga ñi doon euh, magal ki ci jamono yi manam febaru asma ci senegal mm-hmm. asma yow dang koy fajj wala doo ko faj waaw asma dama koy faj mm-hmm. asma ci diir bu gatto wala bu gudd ci 45 jours ñu fukk fan juroom juróom tagok mom moom ilaay mu tagok mom ñu fi ñëw ñu fi ñëwagun de dellu si ñu ndax fi wér nañ leneen ñuy ñëw nag waaye leneen moo leen indi waaye asma indiwu leen. leneen moo leen indi. waaw mais ñu sama njaboot gi rek am na ñu ci asmoon waaye gisatuma asma gi. loo koy fajee. ay garab. yu demee nag yu garab yi garab yi plante rek. baatin wala reen yeeg yooyu ay garab yu sax yu yàlla saxal ci lañ koy faje <laughs> mais asma lan moo koy jox nit. asma asma nit mën na ko donn ci waajuram nit tamit mën na koo mën na koo liggéey di liggéey ci lu mel ni mees wala muy liggéey ci lu mel ni maanaam euh, ministère yi nga xam ne dañuy liggéey ci wàllu poussière bu bari xeeti poussière yooyu mën nañ laa jox asma na feebaru dënn la daal. ñu ñëw ci beneen mbir ku bëgg soxna su baax. Hmm. yow da nga ne mën nga ci dara. Hmm. nan lay def parce que léeg nga dégg. Hmm. ñu naan booy takk soxna sax. da ko war a seet ñii léeg-léeg nga dégg ñaan diw dafa takk soxna soxna su jiwu ko moo tax temps yi dara léeg-léeg nga dégg ñu ne nit dafa takk soxna jaare fa dëddu ñii ay ay gaaf yu mel noonu mm-hmm. yooyu yëpp dugg ci mbirum takk soxna mm-hmm. takk soxna su baax dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg ku ko bëgg nan lay def naa boo bu dee doonu jox lépp nga joxe ñi ci exemple yoo xam kuy seetaan tegtal mm-hmm. dina xam ne lii bu ko jëfandikoo génn ci xam nga soxna su baax gannaaw am na ñoo xam ne dañuy bëgg kii ci ko ko bëgg leen xam nga wax xam naa li nga wax ñi ne ci di di di di di ko liggéey loolu bu fulla moom est ce que bàyyi ko du yoon wi am ñoo xam duñ bàyyi dañuy dañuy dem di ko liggéey am na ñoo xam ne tamit dañuy xool koo xam si ne dañuy leer ne moom mënuñu taa jot ñu dem di ko liggéey am na ñoo xam si ne dañuy bëggante ba noppi waaye faw ñu ñëw ci ku mel ni seen jiir yi pour mu xool ba xam ñaar ñi seen wërsëg ànd naam déet ndax am na ñoo xam ne dañu bind ci ndox am na ñoo xam ne dañu bind sawara xam nga sawara ko ndox mënuñoo ànd mënuñoo ànd su boo sottee ci ndox mi ci sawara rek mu fay. day da ngay day fay da ngay bu la fekkoon rek milliard tamit da ñàkk milliards yi. Mhm. am na soxna soo xam ne dañ koy bind ci ngelaw ñu kii ñu bind ko ci sawara xam nga da ngay upp rek muy gën a béy. moo gën a baax moo gën a baax. kon soxna dafa nekk loo xam ne bala ci dugg da koy seet am ñoo xam ne nag dañuy ñëw ni la kii laa bëgg fa force nañ ma ko jéem a maye xet yooyu. <laughs> yooyu moom yeneen mbir la xeetu naam da ci dal dugg ak yu kon daal yooyu moom yow daal jubóole bi ngay def. waaw ngir ku bëgg lu rafet. mais beneen bi doo ci dugg. beneen bi du ma ci dugg wala bu ma ci duggee tamit danaa xam ba xam kii soxna si la bëggam ne la am ñoo xam ne ñeen jël ngir saay saay leen. Mhm. kun takk xala waal foofu tamit da may ñëwal foofu kun takk xala ak yooyu. waaw xala guñ ko takk dañ koy tekki dañ koy tekki ci loolu sax mu doo mat daanaka benn fan wala yooyu rek ñu tekki ko ci. waaw na am na xale yoo xam si dañ koy takk dañ koy tubay ñu ko faatu dañuy jël takk ko ci waaw am na xale yoo xam ni ñu ngi koy def ci sagaru muuma wala sagaru koo xam mënta wax am na xale yoo xam ne ñu ngi def ci armeel am na xale yoo xam ni tamit ñu def ci ay aaya am na yoo xam ne ñu ngi def ci frigidaire li mu gën a sedd rek. waa gën a tëli moo gën a tëli waaw. Oke, ok loolu nit bi koy def pour lan la koy def lan lan moo tax nga koy def. am na ñoo xam ne tey jii maanaam dañuy takkal wujj dañuy takkal wujj tey jii ñu ñu ñu ñaan yàlla wujj moom bu ñëwee ci man dana man dara bu ñëwee ci keeru ci man dara. kon jabar ci boppam da koy def jëkkëram. da koy def jëkkëram waaw. am ñoo xam ne dañuy da ngay jamaale yaag Ahmed da ngeen di bokk ndaw si. léegi Ahmed njëkk la ci njëkk la ci ndaw si. Mm-hmm. Eh, nga jóg ni ko xaaral ma ñu liggéey. mais loolu tamit am jot la ba léegi lépp am na gis naa ko. loolu lépp am na. pour léegi waa ji bu ah. jotee moo tax est ce que ko loolu tax yi bu kenn takkee soxna dégg jiw di takk na soxna te mais ànd nañ kenn xamul fu nekk ñu ngi leen di woo jotul leen. waaw am na waaye tamit dañuy bañ rek comme li ma la wax na am ci. takk xale am ci waaw te takk xale dafa yaatu léegi. gis naa sax ñoo xam si duñ takk xale waaye dañu lay nuyu rek li nga yoroon daal di dem. waaw man man am naa si ay cas yu bari yoo xam ne xaw gaa yooyu doon na leen fi wax. waaw foofu waaye a nekk nag lu mel noonu dara la boo ñëwee ma dindi ko ci saa si. maam ñooñu di nuyu jël bagage jàmbur yi ku ñëw yow. ku ñu la nuyoo rek bagage yi daal dem man boo ñëwee damay dindi eh, jëli bagage ak fu ñu ko mën a denc. mais ban càggante nekk ci nit ki sax ba nit gi ñu nuyu ko bagage yi dem. du loolu xanaa dafa am ñun koy def. maanaam maanaam maanaam maanaam uh, am ñoo xam si ni dañoo sérieux duñ duñ duñ duñ jàpp ni maanaam kii nii mën leen def looy def yenn yi xam nga loola. waaw ñëw rek salaamaaleykum comme comme ki ki kaa bi mujj ñëw fii ci man. nee na ñoom ñoo ñoom ñoo bokkoon di julli si benn jumaa ci jumaa waa ji éni booy bi université la nekkoon ñu nekkoon di julli si benn jumaa bu ñu jullee si jumaa ji ba noppi nee na bi mu noppee ki mu taqalooloon noonu ba mu noppee gisul gisul ay waay yàlla te ki mu taqalool moo ko def ci mi ngi julli. loolu nag kenn mënu cee mucc gannaaw ci biir ñu ma yaa ngi koy defee. waaw mucc si day jafe. da ngay seet yéen yi naan ku ku ku sellul rek lan mën a def loolu quoi. ku sell yëpp mën nañ jël say maanaam maanaam xam-xam bu wéree moom lay jàpp ko sell jàpp ko sellut ndax suñ kilifa yu mag yi ma doon tudd loolu léegi dañaan ñaan def dañ ñaan ci seen bopp. bu baax ndax ñooñu la gën a mën a jàpp sax ci ñeneen waaw léegi lan nga man si ku bëgg ay affaire tukki. waaw ku bëgg tukki ay kayit ay lijjanti quoi. affaire yi dëgg waaw am na aay yoo xam si ne boo ko booleeg euh, kawarub gëléem da ngay daal di mën a tukki yu mel ne suma sabi lay sërxoo yooyu. ba aay bi jeex da ngay daal di a da ngay di mën a da ngay daal a tukki incha allah taala. jërë ngeen jëf mbokk yi ba léegi comme ni ngeen koy gisee rek yéen ñi seen émission tegtal ñu nekk fii Kër Mbaye Fall dalal sëñ Djily Gaye koo xam ne que gis ngeen waxtaan bi ni muy demee lii lañ bëgg koo xam ne ko buy wax askan wi yëg ne kii xam na li muy wax mën na li muy wax maîtriser na ko ngir xam-xam mën a yokk sëñ Djily Gaye dañuy ñëwaat ci beneen mbir. Sénégal yi léegi. da seen ñëpp bëgg bayra. léegi wàllum bayra yow. baax na wala baaxul ñii ne bayra kaaraange ko war a jiitu ak bayra lan mooy njëriñam ak yow di nga ko defam déet ñëwal ñu ci. xam nga bayra moom baax na ndax da nga gis koo xam si ne day wàccee conteneur quarante quarante pm. duko jaay ci mënta jar gis ko xam sin de day ay otoom auto bo sa bo rombe fek ko fa du jar ko xam sin de soxla solo sa jonn yoru kërëm duko jaay ci mënta jar ñak bayre motax ak mbër buy daan rek te kenn duko deg waaw di daan rek ci kenn lu deg <laughs> te gis nga mbër mo xam sin naan fukki combat la am te mi ngi mi ngi am ko xam si fukki combat ak juroom la am ba pare kenn dégg <laughs> demul fenn waaw demul fenn yoy bayre lu bax la mm. waye nak bayre mën naa am bayra bo xam si du am muslay koku lu yag yag borom ci du bax ci mom baxu ci mom ban bayra bu bax bayra bu and ak muslay mo bax comme bi may liggéey ci sourate yasin nga xam ne si day and ak ay muslay ay ay yo xam ne ñuy ay muslay koku bayra bu bu kawé kawé la bo xam ni. lu hmm. jara am la ndax tamit manam asgor dafa wara yor dara. waaw waaw. bobu na lay demé parce que léeg nit ñi dégg nga dégg fofu nga léral ñu fi sax hmm. ñi naan tak baax na ñii ne takk baaxul ñi ne sangu baax na ñii ne sangu baaxul ñii ñii ne waaye dëkk bi daal ku takk doo naan doo diw doo suuru léegi ñu takk la tege ne takk moom lu baax la ab jullit dina takk ab jullit dana takk d'accord ay téere ab jullit dana sangoo ab jullit dana naan ndax aaya sifaawu yi ñu ngi ci alxuraan te loolu moo ko tax a jóg ndax léegi leeral ñu bayre ba ndax ñu leeral la bayre waaw bayre dañ koy liggéey ci alxuraan ak ak ci yenn ci garab yi ñu boole leen liggéey leen muy bayra boo xam ne si ni bu mucc ayib la boole ci xorom ak suukar ak parfum nga xam ne da ngay am bayra bu mag a mag a mag a mag. da ngay saf nit ñi. Mm-hmm. boo jaay mu jar. Mm-hmm. bu la nit ñi gisul seen xel nekk ci yow. Mm-hmm. bu la gisee kontaan. wala yu mel noonu léegi yow côté kii. ñaan. yow daal bu bëggoon a doon roi des arènes mën nga ci dara. xam nga ñaan amul lu mu mënul. ndax ñi fi nekkal waa restaurant kenn xamu leen woon ken xamu leen woon wala waaw lamb ji fi bëgg mu jam bëgg dem rek lamb ji siw joju ngay dégg xam nga ñaan yi wala lamb yi duma ci xaw waaw mais yow dal lu droit de arènes yow bu ñëwoon ne la jappalé ma ci est ce que mën nga ci dara man dama gëm ni lepp lu mu dugg rek suñu borom dama cey may ndam ndax alquran amul lu mënut te amul lepp nga ci bir na farat na fi kitab min sayyid alxaan sama tire bayu ci dara yaa jàll nek president ak yaa jàll nek lepp suñu borom lay neex rek nak suñu president mak Sall bi ni ko waxoon ne da nek president nga weddi na amna ñeneen ñu fi ñu ñu fi nekkandoo ñoo xam ci ni ñom lañu gëna jappoon jàppoon nañ ñoom moom mooy president kon suñu borom lim wax rek lepp lu ñëw rek ci mbettel lay ñëw mhm. waaw moo tax dama lay dikkiraat ci seet léegi rek. Euh, miir bi ci ginnaaw xamoo lu fi nekk. boo doon seet doo xam lu ne ci miir bi ginnaaw ci ginnaaw miir bi kon am na yoo xam ni moom dañ ko bàyyi ak mbirum suñu borom rek. mbirum suñu borom waaw mbirum suñu borom la daal. d'accord ñaan nag moom sabablu la. mën nga cee sabablu yàlla may la ca ndam. Mhm. ca wolof yi danañ wax naan loo dugg ci neen dañ ci génn ak neen. waaw kon daal dana. sëñ wax naan ku bañ xar fa fuuf ga fuuf ga ni la fuuf. <laughs> waaw te Afrique lan nekk. te Afrique lan nekk. ci Afrique bi réalité boppam waaw waaw d'accord jërëjëf sëñ Djily ci seen émission tegtal la xam naa ne yéen a ngi noté bu baax yokk leen bu baax euh, ngir xam-xam bi gën yokk sëñ Djily ñu ñëw ci beneen mbir. kort. Mm. Mm. ñëwuñ ci kort. mooy lan dëgg waaw kort mooy loo xam ne si mën ngaa nekk Côte d'Ivoire ko ko nekk Sénégal. korte mooy loo xam ne ngaa nekk fii tamit def ko ku nekk Côte d'Ivoire wala nekk ku def ku nekk Italie wala Allemagne wala fu mu mën a nekk ba nga ko def. Mhm. waaw. comme noo koy defee. waaw korte lu ñuy sànni la li ñuy lancé lay doon am na boo xam si ni da koy def ci picc bàyyi ko mu naaw. bu ko defee maanaam maanaam fu mu mën a demit dana day sonn. day sonn korte lu baaxul la waaye ñun man sa wàllu bopp man sañ ji li maa ngi ciy dimbali ay nit. ba di gis ay résultats di leen ko teggil bu baax ba ñu gis ay résultats yu wër te wóor. waaw léegi yow ñaata doomu aadama boo doon à peu près boo doon kii quoi xam naa xamoo lépp sax. Mhm. mais bu doon da nga ma bëgg a wax ne man lu mu dee dee. 1000 personnes 100 personnes 200 personnes wala yu mel noonu ñii moom jàpp naa ne faj naa seen ci kattanu yàlla. Mhm. saafara ngeen seen seen jàngoro maanaam génne nga leen ci. lu mu gàtt gàtt dana mat juróomi junni. juróomi junni maanaam 5000 personnes dana ko mat. te ci 5000 personnes yooyu mën naa ci diggante daawa lay doon loolu. ah kon yow. moom te bi boo paree naa la wan carnet yëpp. yal na yàlla xeeb doole. waaw jërëjëf uh, sëñ Djily Gaye mm-hmm. ba léegi ñu ñëw ci beneen biir. Mm-hmm. yow da ngay faj ay dof. waaw am na ci façon dof yoo xam ne ñeen di faj. dof yi xatraayu nag mbëkk miir bi tëll kii. jaxase ci saa si li ngay def mu sedd. ci saa si. buñ ko defalee safara ci tokkoo ko rek moy daw yoy di tàngal nit ñi xëtraayu dóore fi di problème yooyu indi ko kan, dañ leen di dañ leen di faj ñu wër wala ñu jek jek rek yor ay rap di daanu ay di fëlañ fëlañ ñi ak ñi yamba doflo ñi ñi yamba doflo ñëpp ci am dañ leen di jàppale ci kàttanu suñu borom ci ñaara fan nga lijjanti seen bir amna ci bokku ñu nak amna ci amna ci ño xamni amna ci ño xamni ci nit dañ dem ba 45 jours amna na xamni dem ba 3 mois comme nima la waxoon ci mbiri ñaan rek da ngay ñaan suñu borom moy moy lay may ñom ay ciangar nga leen joxol amna ci yoo xam si ne leen def sox sangar dañ leen jet dañ leen di ñaanal yalla tim ne ñaanal leen yalla amna xam na ñeen di wiccax safara ci rek ñu wër ak tàggoo ko ñu ñew ci ki cat ku mm-hmm. cat japp mm-hmm. cat mm-hmm. amna na kum dul japp wala ñepp lay japp cat ak lan moy cat bayul kenn cat bayul kenn cat moy lo xam ni tey bu nekké ci yow bu maanaam bu fekkente ne jógoo ci ilaa ilaa yemul xiyaamati rek ba bis penc rek lay lay liñ ci yow da ngay gis koo xam si ni danaa man ca tam a jàpp parce que day lijjanti benn mbir ñu ne ko bu subaa ñëwal bu subaa bu ñëw bu demee du fekk dara da koo xam si ni maanaam day day am lu baree bare bare bare bare bëri mais day dem ba yàgg maanaam daaw amoon naa nangam daaw jëkk amoon naa nangam waaye rek maa ngi ne ma dara. xeetu cat lépp dem na lépp cat la. waaw cat insha allah dañ koy teggi ci nit ki ba mu deñ ki nga xam ne cat daf koo sama mm-hmm. mi ngi seetaan seen ji liggéey mais xëy na sori na wala yu mel noonu bëgg na am solution boo xam buy seetaan tegtal mm-hmm. dina mën a wax ne nga tegtal ko ay mbir ne ko lii boo ko defee mucc ci cat lan loo koy wax xam nga saat doot boppam te eh, sekere ak sakara ñoyam dañ leen di nëbbu <laughs> moo bees gen sekere ak sakara ñoyam leen dañ leen dañ leen neub gën da ko gën ci mbedd d'accord te nit du faj bopam mhm. mën la wax lu koy dindi léegi mhm. amoo ijaaba bi bo demee do ko du du tax nga sangoog ngeen ma lañ ma jox baxul d'accord xam na ma la wax xam na leen man mi sax fini duma nii faj sama bopp mënuma faj sama bop ngay dem ci ñeneen ñu lijjanti sey mbir. ñeneen ñu lijjanti samay mbir. d' accord ma ñi. <laughs> sëñ Ndiir ñi ci wat ci benen bir mhm dafa bari fi senegal temps yi kenn xamul lu ko waral lak le kër ya nga lak magasin ya nga lak dëkk bi yaa ngi lakk tool yaa ngi lakk kenn xamul lan la lak googu non ñen ñi da nga dégg sax ñu ne est ce que du yi alal yu lewul yu moy genn ñen ñi asaka bi te ko moy ki lak bu bari bobu lan mo koy indi ak yow lo ci man lak ñaar saay rek koy def ko xam ne da to fi di wër da bëgg sa kër lak wala ko xam ni manam jinné la am jinné ci kërëm wala mu ko xam ni kër gi mu nek jinné dafa nek jinné ci lak kër ga. Mm-hmm. ala julé wul du lak tamit wala. alal jullewul maanaam am na ño xam ni julé wul te ji man ko am te man na baña lak hmm waaw kër ga nek kay day am place ak wala mo am place rap rap dëkk fa ba nga fay dugg sétlu woo won nak ndax kër dañ koy sét mag ñi bu ko dañuy sétlu kër ak fas léegi fas moy auto rek ak jigen ak jigen wa dañ ngay serlu ba lañ cee dugg. waye keur fi ne nii day nekk keur kër goo xam ci ni rab fay dekk bu fa rab dekké nak pour mu deñ. faaw rek nga wo borom xam-xam. Mhm. mu dindil lako jang fay kamil mhm. togg fa le xam ci ni junne yi moom bëgg ñu togal leen ko fa. wo ñuy jang ci alxaan ñu ko lek ko wala fa dem borom ko dem. si ji bu ma la laajee beneen mbir nit biy tox bëgg koo bàyyi mu cigarette ak ñoom yàmbaak yi ci laxasu nit biy naan sàngara bëgg ko bàyyi nit biy sàcc bëgg ko bàyyi nit biy fen bëgg ko bàyyi xeetu ñàkk natt yooyu noonu ku mu nekk ci moom yow mën nga ko ci dindi wala mënoo ko ci dindi lépp mu ngi aju ci li yonte boo waxoon waaja rek ba ma ko dama bëggoon tugg tuub dugg ci lislaam mu ko dangay bàyyi fen rek ba bàyyee fen moom mais gars yi léegi daal lu la wax dañuy fen lépp lépp rek dana dana dana dana dana kii dana jeex ndax tey jii boo ñëwoon te sa njiir yi man nga ne ma bàyyi naa tox ba ma nee ya la bàyyi nga tox nga ne ma waaw fekk yaa ngi doon tox fen nga te neen sàngara nga ne fen nga moo tax waajal dafa mujj bàyyi bàyyi fen rek daal di bàyyi lépp far <laughs> demee mais problème bu Sénégal léegi mooy fen léegi nag bu fekkee mënoo bàyyi fen nag moom bu dee tox mi mën nañ la si jàppale nga bàyyi tox bule sangar sama si ko jàppale nga bàyyi naan sangar bi mhm. waaye fen mom <laughs> mooy mbir mi fen dia ci jàppale sa bop ya ci mën a jàppale sa bopp wala ngay dégg la yonente ba waxal waaja rek eh, lu mu waxal bal fen waaja bu génnee ci bu bëgg a tux mu ne ah wax yonente bi waxoon na ma kat mhm. bal fen te su ma tuxee su ma demee ci yonente bi mhm. mu ne ma tux nga mën na ko tux naa tuxuma danaa fen kon nag du ma tux tey bu bëggee naan sàngara mu ni ah su ma naan sàngara su ma demee su yonante bi dan ni man naan nga sàngara mu ne ko nanu ma kon fen naa waaye noonu def ba bàyyi fen bàyyi bàyyi wàll lépp <laughs> ndax alxuraan ji ay fen lépp lépp dëgg la alxaq kon boo ci boo ci dee nekkee da ngay bàyyi wàll yëpp mais léegi lan ngay digal fii Sénégal mm-hmm. léegi daanaka nit ñi bu ñu la waxee fukki wax jàppal ne juróom-ñaar moom ay kàcc la mm-hmm. ñett ya benn ba ñàkk jota leen koy may mm. mooy tax duñ ko mën a def beneen bi mm. xëy na mën naa mu doon dëkk mm. léegi da ngay seen magum jëmm de waxuma la toog di fen ngir mais magum jëmm mën naa toog ci télé wax lu mat une dinaa pare li mu wax lépp mm-hmm. lim la waxal ba waat mën la waataat ne du dëkk waaye loolu loolu li ko waral mooy ñàkk jàng xam nga boo xam boo jàng di yi ñu bari dañuy jàng ba pare di kii des lañ jàng xam nga jàng ak jëfe dañoo bokkut mu ngi mel nii ak nii <laughs> jàng xam nga dégg nga barki démb ñu ne la benn koo xam na que mooy jottali imaam bi doon góor jigéen. kon nga xam ne gars yi dinañ jàng. mais caay-caay gi day ñëwee faneen. xam nga am na loo xam si nii seen deret lan nekk. kenn mënu koo dindi xam nga naafeq dafa am. naafeq mooy ñoo xam ne dañuy julleendoo di demandoo si jàkka yi bu àjjuma kenn du doon si jiitu. lu ñuy def lu nekk ñeent ci kanam ñu jiite ci ay naafeq lañ loolu ñu ngi ko ñu ngi foon dipp jamono yonent bi ba léegi nii. naafeq ay naafeq lañ ñooñu ay naafeq lañ. d' accord léegi tux cigarette rek naan sàngara ak ñoom yàpp yooyu. koo bëgg a bàyyi moom toog fi mu toog boo ko amul solution boo ko mën a def defal lii defal defal lii mu génn ci. wala il faut nag mu ñëw gis la. xam nga xaatim kenn mënu ko tegtale ci ay téléphone ak xeet yooyu. waaw ah, seen jigéen ñi ñëwaat ci wàllum beneen mbir. Mm-hmm. xëccoo place. Mm-hmm. maanaam léeg leen nga seen comme jamono ji ba ci e-, examen yi ñu nekk nii élèves yi. Mm-hmm. kenn koo xam ne que day fonk njàng mi lool. gëm ko lool. waaye du ci génn. seen koo xam ne que saa yi njàng mi moom fi mu ko teg soriwul. mais saa yi ak fu compo ñëwee moom du sa morom ko léegi ñàkk sens googu noonu léegi dama bëgg. wàllum kiis. da koy defar. am doo ko defar. ak wàllum xëccoo place maanaam. examen rawante ñoom seen yëpp. waaw wàllu xëccoo place am na am na ñoo xam si ni maanaam examen tamit am na. am na ñoo xam ne si ñoom bu ñu def bëgg a def examen dañuy am lu ñu leen defal bañ demee ci examen bi dañuy dañuy concours bi dañuy dañuy jël concours bi te Sénégal ñaar fi am nga am gàllaaj am ñaan wala nga am su mbokk mu lay jàppale xam nga la xam naa da ngay koo xam ne si nii moo la dàq jàng fuuf gën laa xam lépp ci concours gendarmerie beeg yëpp ak police waaye moom moom duñ ko jël. Hmm. waaye ndijaayam dafay nekk rek. mu lijjantil ko ay dossier am ñu jël ko. kon ñooy concours gendarmerie yooyu yëpp. yëpp dañ ci waaw dañ ciy yëngu ci kàttanu suñu borom. ndax bul fàtte ni li ñu yor du luñ denc fii lu suñ borom téye la te kuy ñaan suñ borom doon na ko tey tey nga jox ma jox ma ko. Hmm. comme BFM yeeg bac bac baccalauréat yeeg yooyu ku ci bëgg fu nekk mu tëla. bu ñëwee gis sa njëlgay nga génn ko ci. dañ ko ciy jàppale bu baax incha allah. dañ koy jàppale bu baax a baax. jërëjëf sëñ Djily Gaye ñu ñëw ci beneen mbir. bii moom fajkat yépp mooy wax laaj ma ko. maanaam xaw ma dañ cee aay loolu laay dëkk di wax xaw ma dañ cee aay. xaw ma moo bari ci askan wi xaw ma lan. muy ndoxum siti. ndoxum siti lan la mën a yàqal nit muy góor ak jigéen ak bu dalee nit ki nit ki nan lay xame ni lii ko dal ndoxum siti la ak lan moo koy faj. ndoxum siti képp koo gis muy dox rek. am na ko ma xam nak bu for ba wala bu wayef ba ban moy bu wayef wa da xam ndoxum siti bo xam si di mën naa mën nga bañ xam ni buñ la am nga ko sax do gëm ni am nga ko da nga jek jek ay fan muy xatan sa yaram ba ci yag ay fan mu tanewaat am na boo xam si ne mom ku la gis day xam ni yow mi am nga ndoxum so soit sa wey ñuul kuku wala sa bëdi xonxu wala sa bëñ nga am ngay faral di am di bëñ na febar deret la ci deret la nek waaw waaye nag dañ koy faj bu baax a baax a baax te ñu ngi ci galang ay dom dom. Mana ndoxum sit tamit mën na gàllankoor nit ki du am doom maam mën na yóbbu nit ki mu tële mu tële mu tële wala bu dee bu mu bañ am doom daal mhm. waaw bu dee dem ba maanaam yàq ay bët ak xet yow ku koy waaw dañ ci jàppale ku ko judduwaale dañ ci jàppale do aadama bu baax ku ko judduwaale nag même ku ko ku ko ku ko judduwaale mën ñu ko mën ñu koo faj boobu doo ko faj dañ ciy génn nit ki lan mooy waral góor di néew kàttan dëgg-dëgg lan yan sabab mooy am waaw comme comme ndoxum eh, télé boobu nga wax noonu dañ ci yëngu bu baax a baax ndax eh, am na ñoo xam ni ñu leen jàppale waaye kee xam si da koo judduwaale kooku luñ ko mën a faj ki xam da koo dab am na ñoo xam ne faiblesse sexuelle la ñu am dañuy dem ba yàgg maanaam buñ mënee benn duñ mën a ñaar am na ñoo xam si ni maanaam bu ñu bëgg a jore seen soxna far yegg fañ jëm yooyu yëpp dañ ciy dañ ci dañ ciy jàppale ay doomu aadama te ñu ngi ci gis ay résultats yu leer nañ ñi hmm. waaw. waaw kon daal ku too am doom. waaw ku jigéen ku too am doom am feebar boo xam si ni lu bari nag moo koy wala mooy kist ci bitut njurukaay la nekk nekk ay bul lay doon. yoyu dañ koy dañ ci jàppale ko defal bam sey ak yoyu mais ko am kaa nga genn ko ci ko wa inshallah allah bu ci yalla bu tële. inshallah allah bu taw am dom inshallah ak euh, ñoom ak ku new kata ak ku new kata nak ak xet yoyu waaw. jeerign ngeen seen émission tektal la ba léegi comme yu jeerign na bi yobante la wa bitim rew ñu bari dañuy wax ni seen problème len la moy problème mu ngay seen ko xamna ne def na àll lu mat ñaari at bay fi soxna soxna si munul mom japp na ne ku yobbu soxna so soxna so wor la te momi ñew ñëw yomb ko mu téefee bopam bay fi soxna ci tarel bopam tarel soxna si demuñu dikkuñ léeg-léeg bo wax ñu ay kayit moy problème moy ay lu bu ñewé duñu wax bu démé duñu wax légui problème bu kayit nam ñi bëgg tukki sax coono biñ ci daj ñom ñi nekk fa la ñoo op ëpp ñooñu boo leen doon jappalé ak yow lan nga man ci ñoom. si njëriñ waaw ñooñu ñu leen bu baax. ndax am na ñoo xam si ni jamono yi sax fi ñu topp fi ñu toll nii tembe bu dee mel ni Italie dañuy nangu seen kayit yi di leen indiwaat si réew mi ñooñu nag dañuy gis koo xam ni ñu nangu ay kayitam di nga defal loo xam ni incha allah dañ koy woo joxaat koy kayitam ci du sonn am na ñoo xam ne nag maanaam problème mu kayit moo leen moo leen jafe moom mosuñu am sax far. waaw ñooñu tamit dañ ci jàppale bu baax a baax a baax a baax. waaw Europe moom boo fa nekk ay kayit mooy sa mooy sa problème am na ñoo xam ne nag dañu nekk Europe ba pare. manam mu mënuñoo am dara xam nga bayr tubab dafa am. bayr tubab waaw <laughs> bayr tubab bu ko tok bayr ni ko ñuul leen lu nekk ak say bayre xet xeetu bayr ak nañ lay ñaanalee amna lo xam ci ni uniquement pour tubab la moko ko tax a jóg waaw yooyu nag bu yalla dogalee bu nga bar ko suuf ci réew ma sangoo ko incha allah dañ la bëgg te du ci ñu la bañati mukk te lañ jox seen alal te duñ ko sañ bañ. ñu ci walum dugg kasso hmm. hmm. do xam ni deug wala nattoo am wala ñiy dugale ci kaso ba ñoo soxor wala lan la ngir gi nit ki ngir mu mucc kaso yow loo ci man ak ku dugg ci kaso pare pour nga génn ko fa ndax man ko benn li ma ciy njëkk wax mooy maanaam na jub ndax ku deful dara maam kan nga la dugal fer na fi benn na jub ñaareel ba na moytu ak tooñ ñetteel ba na moytu tooñ ba pare ñu tooñ ko buy fayu ak tooñ maam fayu bopp fayu ak tooñ waaw am ñoo xam si ni dañ leen di tooñ tuuti ñu dem fayu yóbbaleen dugal dugaleen ci kaso bi da nga romb benn doomu kii rek colonel rek nga dóor nga mbéj ko moo tëj <laughs> ci ñetti at wala ñaar ñaar ma wax <laughs> mooy fayu tooñ ak fayu ak tooñ suñ tubaab moo waxoon loolu moo ne nañ ko nañ ko moytuwundu ko waaw waaye kay xam si ni maanaam dafa def lu di maanaam dafa dem tëdd xale bu jigéen kooku mënuma ci moom dara. dafa dafa tooñ waaw. ku jël àll waaw ki nga xam te ni dafa sàcc ba dugal ko ci kosa bi nañ ko yar. ndax sëñ Moustapha Bassirou dara wax naan ko ci yoon wi nañu tegaat ci kaw yoon yi nga xamal yoon yi. Mm-hmm. waaw ndax foofu tamit am na fu mu côté bu mu baax laal. ndax bari na ñu fa jaar ñoo xam bu ñu génnee dañuy rëcc jub kocc di julli jaamu yàlla. dal ki waye ki xam si nak mom dañ ko togn ba ko sa bi am lo xam bu ko ko defale bu ko nané genn donc koy fekk ci kosa ba def ko mu nan ko genn ay mbokam kay ñokay jël ci yobbu ko te kosa ba jox ko mu nan ko genn li ki nga xam ne ko dugagul mm-hmm. xeyna ta legi ñi koy jaay doole waaw koku tamit lo ci man dugagul waaw ki xam si ni ki xam si ni manam toñul kenn te kenn toñu ko mom man nañ ko jappalé amna ay karangeem yo xamne karangeem yu mel ni ay kaaraange yoo xam si nii bu ko jëfandikoo du dugg ci koso mukk ci àdduna mm-hmm. waaw ci guro lañ koy jox rek bind ko ci guro gi mm-hmm. mu yooyu ko même côté kaaraange sax dama bëggoon ñëw foofu kaaraange mm-hmm. nit ki nan lay muccee yan kaaraange la war a am parce que surtout fii Sénégal léegi dafa metti da ngay seen nit ñoo xam ne dañ naan dañuy tekk jaaro yoo xam ne ko loolu la laaj nga jox leen ko léegi xeet yëpp directeur di ak mom di dajé ak façon di di mel noonu kooku tay pour mu am kaaraange deug deug deug dëgg pour mucc nan nan ban karangé la war wa dafa am karangé goo xam ci ni manam bu ñu ñëwoon di la bëgg a ci mom moy far tit mom mom su boppam. mais pas tiital. mais ah, ñëw pour wa am na ñoo xam ci ni dañuy dañuy tiital ba pare do ko jël na nga yor parce que gis na ñoo xam ci ni ci banque lañuy lañuy lañuy nekk dañuy ñëw yoy nak ci ñag yi ñoo faral def dal di ñëw di jël seen xaalis ak xet yooyu. waaye yooyu am nañ façon kaaraanga yoo xam ni. maanaam bu dee directeur la. waaye muy koo xam si dafa jiite mbooloo. nga xam si ni ñëpp a xëy di ko soxla ji. kooku dafay am kaa war am kaaraanga boo xam ni. bu ko defee maanaam maanaam euh, am am ñoo xam ne dañuy xëy jat seeni jat. am ñoo xam ne dañuy xëy sangoo seen sangoo seen i sangoo. bu ñu ñëwee uniquement pour directeur bi la pour ñu jël leen. wala ñu signé leen benn benn benn benn mbir. yooyu bu ñu ko signé mën nañ caa am ay problème yooyu nag dafa am war a am kaaraange goo xam ni dañuy mucc sañ loola. kaaraange ko mooy bëgg démb rek am na benn directeur bu ñëwoon fii boo xam ni maanaam fi ma waxoon ne foofu directeur la fa woon foofu société bu mag a mag a mag la ci Sénégal gi waaye fi mu nii tey jii mën naa ni sax ñu bari ñoo waxtaan nañ ñoo waxtaanee fi nii dara yoratu ko li ko waral mooy sàggan ndax nee moom musta dugg ci yu mel nii musta ñaanlu musu ko def. boo ko ñaan jàppee daal la doog a Afrique la nekk. waaw Afrique la nekk waaye fi ñu nii xam na ne Afrique la nekk mi ngi koy xam. ñaan moom euh, amul amul lu mu mënta ku mu mënta jàpp. Uh-huh. ñaan. Uh-huh. amul ku mu jàpp. directeur baag. Uh-huh. rakk directeur baag mag directeur baag. ak nijaayam ak yëpp ak nijaayam ñëpp ci am ñëpp la jàpp. li gën a kii daal mooy daal. ñu mel noonu yan nga leen def xanaa yu diis yi nga di defal de. am na ci yoo xam ni maanaam uh, bu ñu la ko defalee. insara allah taala manam manam ba ila yawmi dini ku len lal yaq na am yo xam si ni boo leen laale da ngay mat sa baram am lo xam si ni wokk lam la ku munta wokk ab lam bam nacc mun mun mun ci yow dara loolu lu ni tak lay doon wala lu ni nan ak yoy de li ci bare man samay gala sangu rek sangu wa sangu ak nan rek na tak gi man ko takk tay mu am sobe wala xeet yu mel non mhm. waye sangu rek sangu rek sangu yep dañ insha allah waaw léegi ah. ñu ñëw ci côté walum bay waaw maanaam koo xam na ko tamit day bay bëgg mbir yi dox. kuy jaay bëgg mbir yu dox. kuy fubal bëgg ci tekki. kuy maam kuy def leen ngir bëgg ci tekki. Ah? yow mbir ba jox nga ko àqam mais mbir bi day mel ni joxu la àq kooku loo ci man maanaam tey. dañu seen ñoo xam dañu gëm aar bi jox aar bi cër bu ne. mais aar bi mel na delloowul fayul naar ba xoromam ko. waaw yooyu dañ ñëw ne jàppale ndax boo dee bay am na ci yax goo xam si ne yaxu ko yaxu kii la am na yooyu yax goo xam si ne yaxu ku benn benn mala la yax googu lañuy am sul ko ci tool bi ak benn gàllaaj benn téere daal mhm. tool bi insha allah taala maanaam du du du naax saay da nga fa ji dooga da nga fa amaat lu ëpp mhm. am na ci tamit maanaam koo xam si ni maanaam day yar la mel ni ay jur ak xeet yooyu mhm. dañ ko def loo xam si ni kenn du ko mën a sàcc te jur gi day day day day gën a bari daal insha allah loolu dafa am benn beneen gën a yax goo xam si ni tamit mhm. yaxuk mala lay doon dañ koy boole benn téere def ko ci biir foofu ñu nekk noonu ok mhm. léegi ñu ñëw ci wàllum woy politique yi mhm. woy politique yi fii Sénégal da ngay dégg ñuy def lu ne ñi naan ñooy saraxee yenn yi ñooy rey lu nit yi ñooy def sacrifice yi façon bu ne ba woy politique yi te li ñu bari bari bari bari bari ñett ci sa doon président wala ñeent te boobu daanaka ñoom ñep bobu lañu gëna soxla mu teleen way politique yi léegi tey bu makki waron def remaniement nii wara wacc ak wara a ko xamna nga makki waajal la ki day wacc mm. est ce man nga ci dara ba du wacc ak ko xamna nga makki xalaatu ko woon sax est ce man nga fexé makki xalaat ko fal ko waaw loolu li ma la waxon rek ci tambali bi rek moy ñaan amul lu mu mënut te alxuraan ji maa farat fi kitabin sayyid ëpp na sax suñu dégg dégg-dégg na la waroon tax suñu borom di ko wax sax ëpp na loolu waaye koo xam ni maanaam dañ ko tëkku ci buróom ne ko boo ñëwee nangam dana am am loolu bu ñu ko ko defalee barke suñ tubaab maanaam bu demee ca bureau ba jàmm dafay jëlee ak salaam. kenn du ko wàcce. kenn du ko wàcce ca kaw rek la jëm. yow est-ce que dog parce que gis gars yi yor beneen côté bi quoi xërëm yeeg yooyu. waaw ah. mooy xërëm yeeg ñoom ñoom day dem bay wax sax yàlla nu yàlla jégal ci kàddu bi ko tudd. Hmm. bu neex yàlla am day am bu neexul yàlla du am bu yàlla day am. loolu moom boo ñëwee sax waxuma ko ni ma defal moom loo xam si ni bu neexee day am bu naqar day am moom mën la yi nga xam ñoom ñoom ci ñooñ la dem di lu ci bari rek. Hmm. ñoom ci gars yooyu leen gën a gëm. Hmm. léegi yéen ñi nga xam ne yéen a yor li gën a wóor nan nga man tegal leen lu wor bam mu ni fee ñuy dem du dara fi moy dara waaw waaw xam nga alxaan moom bàyyiwul dara ndax bo xamé yoon wi rek mhm. liñ ci ñaan day am waya bu nexé yalla day am bu nexé day yalla day am ki ki xam ci moy sëriñ bi du ko def mhm. du ko jëfëndiko te du ko wara bëgg te bu ko defee tamit tat na te du julit dañ ka wara ray sax far mhm. waaw lool mo wedd yalla la ci la bokk yalla dal bokay ñaan da ngay xam yoon wa te yow xam nga yoon wa. bu wér a wér ci laa juddu ci laa yaru ci laa màgg. ci nga nekk ci laa ne. ok <laughs> jërëjëf sëñ Ndiéli xam naa waxtu mi ñuy dab léegi lii moom dama la ko doon laaj pour nga wax ñu ci tuuti rek mm. lan mooy njëriñal xasaayit. xasaayit njëriñam bari na dana la texeen la doomu aadama ba ba ci bis penc am na xasaayit yoo xam si ne dañuy jéggale say say bàkkaar am na ci xasaayit yoo xam si ne boo ko dee jàng. yu mel ni ay moyen bu ak gës bu ak wakkaan xàqan maanaam doo ñàkk dara mhm. lépp lay wusi waaw xasida yi moom euh, njariñam bari na lool lool lool lool lool lool lool ma sax xëy na sax borom mi ko bind moo ko gën a xam ndax danaa bind di gas di suul di bind eh, di def ci géej gi ak di bind muy xasida yi nga xam si ne moom yu mel ni euh, suñ sama xasida yi nga xam si ne bu ma xëyee ci laay jàng parce que sama yaram tàng mu doog a wax ak jàkkaarloog mbooloo mi lu mu leen ñaanal mu am parce que waxtu bi jeexna loy tagoto tàggatoo wax gaay ku la soxla fan lay fekk ak yeen numéro téléphone la la mën a wa limay tagoto moy lima kan defé rek moy sax si julli ak jaamu yalla ak ñub nax lijeenti mom mënta may fi kenn dara bo mën lijeenti lijeenti bo am dara ko la dàq lijjanti jaar fi jaraat ko kon nañ lim liggéey te baye caaxaan d'accord limay limay may wax tamit moy man may keur mbay Fall fan ci Kër mbay Fall Kër Mbaye Fall bu ñëw ci ara jumaaji ci marché bi. waaw am na gën góor gu ne ci marché ba di jaay ay ci jumaaji di jaay ay kurus boko waxe ke señ sëñ jiir laajam dañ la ko won mhm. señ jiir gay. señ jiir kër gi ak jumaaji ji ñaari mbedd dox ci digënté bi. ba lu neex rek nga bo boo te Tëngéej da ngay jéggi télé bi ñu ci mbéd poste finance bi premier mbéd deuxième mbéd ba fi taxawee daa ñëwoon kër gi. Mhm. bo jógee Dakar tamit da ngay continuer ba ci poste finance bi ci deuxième pharmacie bi ci poste finance bi ba jàddee sa ndeyjoor benn mbedd ba ka ñaarel moom moy kër gi. moom mooy kër gi yeen numéro téléphone la la mëna joté wa amna 77. 144. waaw 02 77. 144. 05. 02. waaw 77. 879 14 16. lan affiché sax 77 879 14 16. 77 la 471. 02 52 ku ci gindi nga ci kër gi ok jërë ngeen jëf kon sen Jili Gueye la won seen émission tektal Eh, ñu yemale fi waxtaan yi nga xamna dinañ ko fi dalalat ndax gis nañ ne xam-xam mo ngi yok numéro yi ngeen di gis nak moom ngeen di joté sëñ jili gay képp ko xamna ko bëgg nga lu gëna a leer ci moom nga jox ko ci moom ñu jaajeufal équipe technique bi ñu àndaloon Ahmed nya ak Ahmed Koli di leen jox dig dajé ci benen émission tektal sëñ bi jërëjëf merci jërëjëf jërëjëf maa jërëjëf xam nañ jërëjëf jërëjëf jërëjëf xam jërëjëf ñu gërëm waa LCR bu baax waaw waaw waaw la ñeela nga yokk bam say fere bopp yi amin amin amin amin barke sëñ Fallou hamdi rabbil bari min la